Ikiri HLM ñoom ñoo ma yebal pour ma ñëw présenté wu mais li may mën a wax mooy président na xam ne Ikiri chef Ikiri ñoo ko yor ñoo xam jafe-jafe mbër yi ñooy jàppale mbër yi ñooy sonn ci mbër yi ñoo xam ñaata mbër la Ikiri bu ne am kon waruñu joxe kenn ta joxuñ mbër promoteur boo ko joxee xaalis te mbër yi bëriwuñu moom lu luy bi di jëriñ mais bëre mbër la mbër booy jàppale bëre mbër nga war a njëkk a jàppale nañ jàppale écurie yi jàppale chef écurie yi ku yor écurie yi nga ñëw subventionné ko laay wàdd moo ko daan def bi mu fi jugee ba léegi amul maire buy subventionné écurie te loolu danaan am chaque année depuis Abdou Diouf ba ci laay wàdd ci Macky Sall rek la amagul ay chef football yi rek lañ koy jox mel ni mbër bokkul ci Sénégal du dëgg nañu boole ñëpp ñu yem ñu dëpp doon benn Ahmed Macky Sall yàllaa ko fi teg pour mu nekk suñu njiit njiit nag xam nga ñëpp la fi nekkal waaw waaw di sant yàlla di leen présenter sama bopp ma la Serigne Saliou Ngom alias Zos. di sant euh, sama sëriñ sëñ Moussa Nawel sant suñuy waajur euh, waaw je le président de l'écurie Dóor Dóoraat je l'écurie je l'ai créé depuis donc actuellement euh, samay nawel laa fi nekkal muy samay moromu papa ñu mel ñoom Pape ak ñoom samay morom mag ñu mel ñoom Pape ak ñoom ñii mënuma lim ku lim day juum ñi fi nekk samay papa ak samay grand frère rek fi nekk di wax ne. man damay implique directement euh, le ministre Matar Ba parce que c'est un ami c'est un frère que je respecte et j'ai pas envie de crier sur lui parce que c'est un gars bi xamante ne euh, bëgg na làmb gëm na làmb man xam naa ci dara ndax am na blocage yu bëri am ci làmb Matar Ba moo ko débloqué kon tey il n'est pas au courant j'espère si ce de euh, affaire yi am nii parce que je le connais très bien bañ nekk buñ nekk buñ nekk feen discours noo def mu tooñ ma kon kooku on a une très bonne relation kon tey mënu ma comprendre chaque jour benn mbër débarqué def benn conférence de presse wax keneen débarqué gis nga il faut ñu organiser il faut ñu jox respect làmb euh, les présidents d'écurie parce que Ares kenn mënul dem sans arrêt arrêt sax mooy lan mooy les présidents écuries et les les les écoles de lutte boo nee président écurie rek jaax na école de lutte écurie lépp écurie la tey bi ma leen woowee bi ma woowee CNG ñu ne ma ñom ñoo ne ma dama arrêté li nga bëgg ni arrêté la am man xaw ma ne arrêté na mais nan la arrêté di existé joxuñu leen respect biñ leen war a jox ku ne mbër bu ñu ñëw toog jël ñaari mbër sant ci ginnaaw ñeneen ñu toog ana Moustapha Gueye ana Tyson ana Yekini ana Xaarim Ndiaye ana Baboy non dañuy waxtaan ana ana ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne ci làmb lañ ana Boy Kayre léegi dafa am ñu ñu war a subventionné ak ñeneen ñi dañ leen di bàyyi si ñu bàyyi leen dans l'aveugle mais ça se passe comme ça jamais non loolu lañ bëgg def mais je pense que j'étais bien dit que le ministre n'est pas au courant de ça le ministre bu xamee lii nii. arrêté taxawal ndax gis nga Saalum Saalum yi nii woo naa tey mbër yi bëri ñu ngi nar a ñëw dañu dañu ñu ngi ci yoon bi parce que yeneen ndaje yi ñu woo kenn waw leen ci man mii kenn woowu ma benn daje pour te dire ah j'ai pas envie de mentir ndaje yëpp kenn waw ma ci mais lii arrêté arrêté man maa ko fekk si ñoom woowuñu de man maa leen woo fekk si leen parce que xam naa ne yàgg-yàgg fii lay mujjee mooy les présidents d'écurie parce que li xam ci subvention mooy écuries euh, yi yi nga xamante ne am na nañu récépissé ñoom la mairie bi di subventionné kon bu pandémie ñëwee ñun ñëpp ñuy dund lu metti di dund ak sunu xale yi lu metti budget yi war a génn ñu ba ko jox promoteurs yi loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg balaa nag ñu jëm ci marche fa lañ jëm maa ngi war a gis préfet euh, ak ñëpp ñi nga xam autorité ma xam yëpp ñu ñu benn marche bu mag boo xamante école de yi yëpp ñooy gënn marche ko. boobaa la ñuy xam sunu doole dégg naa ñu wax naan ARS yi dem ci ministre di di n'importe quoi loolu amul ARS mooy dëgg tey mooy dëgg ëllëg les gens qui ne sont pas au courant je vais l'appeler naa woo ñëpp ne leen lii mooy ARS nii la ñu war a doxalee ba keroog mais ñu ngi pare nañ pour jàppale le président pare jàppale le président et jàpp jàpp jàpp participer ci réew mi mais ñii la ñuy def ku leen encouragé wul tey fu dëkk bi jëm wax nañ ko fii léegi encadré xale yi xale yi boo nekkee si xale yëpp. dañuy nekk si dans école de da ngay ñëw normal ñi lay jàngal lan mooy bëree nga bàyyi sa àdduna topp ci ah mais nañu encouragé ñi ni mais jël xaalis jox ko promoteur yi ñu dem lekk ak ñaari combat ñeneen ñekk non moom on est on est plus dans ce monde on est plus bu ñuy bu ñuy bëggoon CNG changement am ak dal Alioune Sarr baax la nañ def ak dal mais bi lépp passé ki fi nekk aussi na recevoir ñi ni ñi Bira Sène man je le connais même pas je l'ai jamais donc nañ ko ñu recevoir mu recevoir ñu le monsieur le ministre Matar Ba mu recevoir ñu ba ci monsieur le président de la république recevoir ñu parce que boo xoolee ampleur politique am yëpp lu bëre ko jox te mënoon a bëree pare tegg président ba c'est impossible kon ñu ngi woo ñëpp ñu ñëw jàpp ci liggéey bi képp nga xam ne gëm nga làmb man je sais pas de gauche à droite parce que ko ne li groupe mu créé kenn mënu ko réglé écurie la ñu war réglé bu ñu réglé écurie yaakaar naa problème bi ñu ànd ak ñoom wa ilaa ñun ñu ngi pare ñu war pare. te fii duñ ko yàggal pare nañ deme deme am nañ ñu war a def ba ci ñu topp ci accéléré mu jeex maa ngi jërëm di leen sant. loolu c'est pas parce que boo xoolee écurie yi dinañ dem ba ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk ba am lu ñu régulariser est-ce xam ngeen loolu lépp président bi moo koy moo koy financé tey buñ ñu fa taxawee tey dañ fa taxawee taxawaay moo fa taxawaay Mbaye Guèye taxawaay Père Balla euh, comment dirais-je euh, Doubalès taxaw xoolal taxawaay ñëpp. ñooñu ñoo créé école ñun ñun ay affilié affilié woo loolu c'est pas important koo de mi ngi créé écrit depuis 2012 jël meilleur écrit jël meilleur lutteur mais mënoo ko topp ci ay détails quand même on se la vérité li ñuy def chaque jour kan moo ñu ko jox du sax mbëri ñun on suñu propre xaalis sama écrit ma créé ba léegi man maay financé tout kenn ma un franc ku am écrit ti alee même droit artistes yi ñu jox ni tey bëgguma leen sax tudd parce que ku ne loo am 5 milliards bi ñu leen jox ba 5 milliards 500 millions la ñu encaissé 5 milliards 500 millions njëkk nañ leen jox 3 milliards récemment joxe nañ 2 milliards 500 on est au courant de tout et ñun suñu sport suñu suñu activité moo gën a métti dañuy bañ day dañ ba day tuuru ah lu ne dina dal mais il est temps ñu dégg ñu ñu parce que duñ ko def kuma ay ndey kuma amul ndey. kii ñooy diw kii lii mooy diw ñun nekk duñ on n'est pas décomplexé bu dul loor ñun fu ñu jógee dafa metti ci banlieue bi ci wut bi lañ jógee dafa metti fii nag la ñuy wane sun bopp bu soobee yàlla jaajëf